yaa ngi dégg euh, président Moustapha Cissé hmm. vice président à l' assemblée nationale nekk président CEDEAO hmm. parlementaire hmm. mais gis nañu daal xeer yi nga xam ne mi ngi koy sànni lu bare bari bari bari ci le président euh, actuel muy le président Macky Sall. ban gis-gis nga nga am ci loolu ci président Moustapha Cissé ak ni mu nekkoon allié wu ni mu nekkoon nit mën nañu wax ni le commandant du président. Euh, Moustapha Cissé Lo ku ma naw la. ci jàpp na ko ne nit kuy wax ni mu xalaatee la waaye li ma bërki démb seetaan naa ko assemblée national li mu wax ministre agriculture loolu d'accord naa ci nañ xoolaat gerte ak nañ xoolaat niñ ko doxalee maanaam nag situation politique bi nga xam ne nii ci la ànd président Macky Sall Euh, dama koy ñaan rek mu delloo si xadram delloo si dalam ndax ku ànd ak nit mun nga foog ne bu yàllay dogal ci sa yëngatu yow dogal boobu ci yow la doge fekk yàlla mooy dogale ni ñu mel yàlla bu bëggee dimbale nit day seet ñu ko neex mu boole leen ci ba yàlla bëggee jox Macky Sall réew mi tànn na Moustapha Cissé la mu bokk ci liyaat naay loolu suñ borom subhaanahu wa taala moo ko dogal léegi nag dogal boobu noonu su nit nit danay dem ba naago foog ne moo fal nit nit danay dem ba naago foog ne su bàyyee nga daanu may ko ñaan ne Macky Sall li mu defal Sénégal yi ak lu baax li mu def na ànd ak président waaye it na dimbale président ci ñi ànd ak moom te jàppale wuñ ko d'accord naa mu waxee ci côté boobu mais président ne bàyyi na ko na xam ne président rakam la na ko uuf na ànd ak moom dégg nga na xam ne président de la république monsieur Macky Sall tey tey tey tey tey am na loxo bu gudd ci Sénégal fu ko teg fu dëgër fum ko téye foo xamante ni nii tey neexul bëmëx bokkul ak yeneen président yi parce que dafa jaar fi mu jaar xam na ñan ñoo mën a téye population bi xam na ñan ñoo mën a wax population bi te ñoo ñu jege na leen trop muy les maire de Sénégal ak les responsables politique ak les chef de religion